parce que en tout cas de personnellement damay rafetlu président li mu dem Touba. Mm-hmm. et jóge fa jaar ci waaw mm-hmm. euh, parce que tamit euh, euh, les chefs religieux kilifa diine yi fi nekk c'est des régulateurs sociaux. Mm-hmm. Euh, dëkk bi à chaque fois bu méttee dañuy dellu si ñoom. te loolu je pense que kilifteef gi sénégalais am. vis-à-vis de son guide religieux loolu bokk na aussi si loo xamante ni si fay na lakk yu bari si dëkk bi e donc euh, rupture bi foofu noonu muy benn lien boo xamante ni si gouvernement warul ñëw rek romp ko mais xanaa gérer ko quand ak modération et comme ni ñuy wax moom ñoom fi mu ne dañoo yor réew mi euh, ñuy ndey di seex war a tuddee ñaxaanaay mm-hmm. donc euh, tëddee euh, toog yamale ñëpp muy jàngu bi di Touba di Tiwaawan di Yoof mhm. ak euh, euh, di di di di Njaasaan Medina Baye euh, ndaxte loolu la ñuy xaar si ñoom mais boo li aussi pôle religieux yi dañu c'est de la même ce de confrérie Mouride Tidiane lay Ñaseen dafa am aussi beneen aspect bu ñuy jouer ci réew mi que ce niveau économique ak niveau social xoolal ñaata nit ñooy jugee di daw Touba par année ñaata nit ñooy jugee di daw euh, Tivaouane par année appel Layeen bi bu commencé xoolal Dakar léppay bouché euh, xoolal kii am na lu ñuy wax sancaan yi Touba village yi nga xamante ni xiif bi daf leen sonal yëpp dañuy dem dem daw Touba donc foofu am na benn euh, yaakaar boo xamante ni société bi am na ko te dafa am ay enjeux économiques ay ak ay enjeux sociaux mm-hmm. léegi te loolu daf may indi si booy xalaat ci dëkk boobu da ngay xalaat assainissement da ngay xalaat salubrité da ngay xalaat sécurité mm-hmm. parce que c'est des pôles yoo xamante ni dañuy accueillir toute la population sénégalaise donc il une dimension politique et une dimension sociale qui doit faire partie intégrante de la euh, planification publique mm-hmm. bu fekkente ni jël nga euh, côté religion teg fële nga indi côté religion comme ni ko professeur waxee ñun dëkk la boo xam ne dañu am lu ñu gëm ñii ñu ñuy musulman lan ñii chrétien lan euh, en majorité en tout cas boo jëlee musulman yi ñi bokk Touba ñi bokk euh, kii euh, euh, Canaba ñi bokk ñi ñi bokk fële ñi bokk Tiwaawan donc loolu lépp dañuy xool naka lañ koy régulariser et que ñu mettre ko en profit parce que bu ñu ñu ñu defaraat rek ñagas ñagas yi ñu ci amoon bu ñuy def euh, réconciliation sociale bi ñu wax mm-hmm. ñu commencé ci foofu parce que euh, ñoom tamit euh, am nañ seen partition boo xamante ni mën nañ ko jouer mm-hmm. ndax boo gisee une Touba université bi xalifa bi loxo mu nga sax bu ci ëppalewul hôpital bi loxo mu nga sax bu ci ëppalewul mm-hmm. Euh, ak leneen lu mu mënti ñëw sans compter les milliers de famille yoo xamante ni dañuy yaakaar si moom comme ñoom tooguñu rek muy dox comme niñ koy waxee euh, ñu ngi ñu ngi bay bay seen waar na leen jàppale rek donc euh, man aussi en tant que citoyenne sénégalaise dama koy dama koy rafetlu bu baax a baax mm. mm. waa di rafetlu tamit yar bi aussi parce que quoi diis dise ay sénégalais lañ mm. muy sa kilifa na serait-ce que ku la mag nga jox ko sa cër jox ko yar Euh, du wàññi si sa kilifteef dara waaw waaw et nekk na président sénégalais yi ba pare mm. kilifa la ñu teg ko ko euh, ba pare euh, accepter ko ko tamit